ngi siyaar ñëpp di nuyu waa Tiwaawan gépp di nuyu tamit waa Kuli euh, di nuyu waa waa Eaux et Forêts ñi nga xamante ni tey jii nii ñoo ñu accompagner ci journée bi. journée bi nag xam nga dana am benn programme bu nga xamante ni dañ cee nekk muy defar sa gox ci loolu moom moo am continuité bi tey. première phase bi moom mooy defaloon boulevard Serigne Babacar Sy bi tey jii nag danoo ñëwoon ci def benn reboisement pour saxal ay garab ci koñ bi. di ci gërëm waa koñ bi yëpp parce que tamit ku nu dem wax ak yow sa buntu kër da nangoo nekk parrain wu garab bi nangoo ko arrosé bis bu nekk saa xëyee arrosé ko ak ngoon te loolu noonu ñoom ñoo nu ko yombalal. certes que tey jii nii ñun jeune waa Kuli yëpp ñoom ñoo taxaw pour defar suñu gox defar suñu koñ mais tamit population bi ñoo ngi topp suñu gannaaw deenu accompagner mais mention spéciale nag ak waa. eaux et forêt ñi nga xamante ni wax dëgg sa yàlla dañ leen koo wax mais biñ leen koo waxee boobu ba léegi ñoom ñoom sax ñoom ñoo nu ci gënoon a ne parce que tamit seen liggéey la dañu boo gisee dañ ciy sawar trop tey jii ñoo ñu accompagner ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax waaw di wax ne ne que kontaan nañ ci ñëpp quoi. jaajëf que mën nañu xam ñaata garab moom ngeen planté fii tey si Kouly. waaw waaw tey jii nii dañu parce que ñoom dafa dépendre ci waa eaux et ñoom ñoo ñëwoon di xool buntu kër yi ak distance yi. Hmm. nun fiy saaxalee garab. après bi ñu xoolee compté ñu gis ni que mën nañ fee ji dix nombre bi mën nañ fee ji vingt. vingt vingt garab yi nga xamante ni tey jii nii mën nañ ko fee defar mais li ñu waxoon mooy garab bu nekk buñ koy ji il faut que mu am lu ko. ëmb nan la tuddati sax gavion yi comprendre nga ñoom looloo nekkoon seen seen seen seen seen wax bu nga xamante ne dañ ne wut leen ko après ñun ñu andil nu garab yi. Mhm. booba léegi nag ci gavion bo yooyu la nekkoon yàlla def ne que tey la pare moo tax ñu ñëw accompagner nu ci quoi. Mhm. ji garab am na solo trop mais leneen li ëpp solo mooy suivi bi naka ngeen mën a def ba garab yi mën a nekk loo xamante ni seen dund ak seen màgg dina am ni mu waree ci wàllu toppatoo bi ak tamit aar gi ba xale yi wala xar yi bañ ko yàq. waawaaw waaw suivi bi moom dañ ko jox ku ci nekk ci waa waa kër gi comprendre nga parce que ñun tey jii nii ñu ci bari ñun ñu toog fii nii kuli mooy suñu koñ mhm. mais yeewoowuñ fi comprendre nga moo tax ñi nga xamante ni fii la fi fi la ñuy yeewoo ku ci nekk danoo dugg sa biir kër wax na la ka garab bii xam nga yow yaay parrain bi yow yaa ko war a mën a gérer chaque jour deenu ko teel. Mhm. li ëmb nag xam nga pour xar yeeg yooyu noonu ñun ñoo ci occupé woon pour defar ko. Mhm. loolu la demee quoi. jëm si ñooñu noonu est-ce que xalaat ngeen teg genre compétition ba ni kat bu ñu demee ba benn diir ku si garabam gën a baax dinañ ko neexal pour initier ñeneen ñi ñu mën a gën toppatoo seen i garab. est que xalaat ngeen waaw waaw waaw idée bu nice la nag. Mhm. wax dëgg sa yàlla te xam naa bu ñu jugee léegi ci loolu la ñuy gën a ne parce que tamit xel du doy dina doon lu nga xamante ni buñ ko demee ci communication boobu dina gën a muccloo garab yi te incha allahu rabbi dinañ dox ci lool bu soobee yàlla. ginnaaw boulevard yi tey euh, plantation d'arbre bu ñu hmm. weesoo lool lan lañ mën a xaar li nga xamante ni mooy xuul ak ñi mu àndal. waaye ñun ñoo ngi xalaat tey jii ni sax kuli gépp ñu pavé ko. Hmm. pavage ñun. ñoo ngi xalaat kuli gi yëpp ñu pabe ko dootoo fi gisati suuf. Hmm. sunu sunu sunu sunu yéene ak sunu xol foofu la toll. te incha allahu rabbi même bu nu tolluwul ci pavage yi di nga gis ni dinañ ci def ay peinture dinañ commencé changer xar kanamu Kuli ba ku fi dugg di nga xamante ni Kuli am na beneen xar kanam bu bees quoi ndax ay jeunes ñoo engagé wu comprendre nga ñëw pour tefar seen koñ. Mm-hmm. mu doon lu nga xamante ni nag tefuñu ko pour mu yem fii bu nu sañoon tey jii nii bépp koñ dina xool ci juste lu ndaw li waa Kuli di def mu nekk royukaay su ko defee Tivaouane moo ci bénéficié wu. maa ngi tudd Abdou Aziz Thiam dëkk fii Koulingi Diagne di wax rek ci reboisement bi ñuy def initiative bi nga xam te ni moom la waa xale Kouly jël pour jëmmal koñ bi gën ko taaral te ku ne xam na njëriñal garab ni mu mel ci environnement kon ñoom bu ñu ko jëlee jël seen initiative jël seen doole bopp kenn jàppaloo leen ñu jël seen moyen bopp propre moyen defar post ba mu rafet def ci sunu sang yu baax yi Seydi Malick ak sëñ Babacar si ñu wuñeeku ni pour mu taar il faut ñu def ci ay garab pour ëllëg même boo fekkwul sax beneen génération bu ñu mën cee jariñu mu initiative bu baax a baax a baax ñu bokk ak sunu mbokk yu baax yi di waa Eaux et Forêts depuis ñu wax leen ko ba léegi am nu jàmm ñëw nañ fi ñëw def euh, plan bi xool ñaata garab lañ soxla ñu dem indi ko ànd kook ñun te soo ba léegi noppaluwunu lekk ñu naa ñun kon ñu ngeen leen sant bu baax di leen gërëm ah, di gërëm xulaat mi nga xamante ni vraiment moo nekk ci bopp koñ bi ànd kook ay mbokkam yu baax yi nga xamante ni ñoo koy jàppale ndax ku ne xam na njëriñal garab ci dëkk surtout bi nga xamante ni dëkku Seydi Hadji la nga xamante ni fu mu toll ñoo ngi daloo ay gan kon ku fi def garab jàppale nga xalifa bi jàppale nga famille El Hadji Malick di ñaan yàlla rek ñi nga xamante ni ñoom lañ ko jëmbatal seen buntu kër yi ñu am ci taxawaay kuñ ci jëmbatal garab nga nekk marraine bi wala marraine parrain bi góorgóorlu ba garab ga bu mu dee mukk saa yoo boo yeewoo ba ndikk ba pare li nga njëkk a def mooy wut sa soo ndox arrosé garab gi. ma nekk ak sama rakk yi nga xam ni ñu ngi defar kuli macha allah ndax kuli na meloon ak léegi yematul ndax ñi ngi bale ñi ngi def lépp man nag maay seen maay seen jigéen boo xam ni maay bale fii ba mu set di arrosé garab yi di defar ba mu baax. vraiment daal koñ bi daal moom macha allah ñu ngi koy toppatoo bu baax set na te sell na tamit nga ko defaral na sunu eh, Serigne Babacar defar fi tamit maam El Hadj Malick te xam nga ni loolu lu baax la ci koñ saa yi ma dee bale oh, ma jow mais damay lu ne la ma wax di ma ñaanal lu ne mu di ko wax te loolu lépp ñoom ñoo ko ñoo ko njëkkee waaw ñu ngi leen sant nag di leen gërëm. man maa ngi tudd sergent Samuel Sagna. bon je parle au nom du secteur sama olof nag leerul quoi bon di rafetlu initiative bi keroog ñëwoon nañ fi ak LT Fall def prospection bi sensibiliser prospection man ak lieutenant Fall rencontrer population bi discuter si reboisement bi bon tey nag moom daa jàpp di coup mu envoyé ma ak njogu ak chauffeur bi bon initiative bi rafet na lool ñu ngi ciy rafetlu bon di ñaan surtout population bi entretenir plan yi parce que rafet na lool bu mu fi dem feneen bu ma ñëwee bu ma jàllee fii gis kuli macha allah kon loolu laay rafetlu ñaan population bi tu vois entretenir garab yi waaw yaakaar naa ni falaa yem quoi ok xanaa ma jox kàddu gi njoogu dëkk ci koñ bi xëy na na waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar ñeen ñëpp di leen béggee bu baax a baax a baax di rafetlu waa secteur des eaux et forêts bu Tivaouane lii ñu def nii tey ñëw sama koñ tey sama koñ leen ñu ñëw quoi lii sama fierté la aussi di remercier Pape Momar bu baax a baax a baax tonton Abdou mi nga xam ni lépp moom moo ko coordonné mooy loolu quoi ñu ngi leen remercier bu baax a baax a baax lii daal mi ngi nii daal kenn ku si nekk si sa buntu kër yow yaa koy jëmal yaa koy arrosé mu màgg incha allah ndamu su ma xëyee naa ko arrosé subaa ngoon waaw ba mu màgg gone gu laal ma ŋàdd mag ma xar ma jaar ma ŋàdd bu a dara na métti waaw te sama doom bàjjan ji daf maa sës luy rëy mën na ko mën na ne waaye man mii la ko jox su ma xëyee fii laay jaayee su ma xëyee bala may lal dem arrosé ko ngoon ma arrosé ko waaw naka nga gisee initiative bi xale yi def jëmbat ay garab sikoñ bi ak garab njariñ gi mu am. xanaa kontaan garab baax du ñu am fu ñu toog ñu ngi nii. Mhm. bu sedd jotee ñu mën fee toog. bu mhm. tàngaay jotee ñu am fu ñu toog ñun fii mooy sunu toogukaay. Mhm. fii la toog. taaliba kër taaliba yaa ngi ñu am fu ñu féexloo. Tuwaawanda këru taaliba la xale yi fu am fu ñu féexloo waaye nañu toog te bu ñu laal. naka ngay wax lan ngay wax sa doom yi nga xam ni ñoo jug am initiative tuddee ko defar sa gox nekk si koñ bi qualifié lu baax ñu defar gërëm rek waaw ñoom defuñu lu waxuñu ko moom mi ba mu juddoo ba tey mosuma koo gis fu mu bonee. rab la daan def mu def lu baax sama bàjjan maa gëstoo nga yi. Habib Diagne nga ne. bu tabaski mu saana jot a korite lu nekk social daal ñoom la ñuy dox social. famille sociale moom la ñu. waaw kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw xanaa di ko ñaanal rek mu gudd fan ak wér sama bàjjan gudd fan ak wér ak yéen ñi di ko mhm.